jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci télé Bougane Sen TV bi nga xam ne Macky Sall daf kaa bëgg a tëj ndax Bougane Macky Sall dafa ne daf ko ameel milliard maanaam dafa waroon fay 1 milliard ci impôt ba mu tax fan yële weer euh, semaine yële déggoon nañ ne Bougane ay xaalisam bi mu am banque compte bancaire am dañ ko tëj léegi yemuñu foofu Macky Sall yemul foofu démba wala bërki démba ñoom Macky Sall Macky Sall dafa yónnee ay huissier ñu dem ngir nangu lépp li nga xam ne senti TV la nekk muy te muy ñoom seen jumtukaay yi nga xam ne Nous la ñuy liggéeyee lépp loo xam ne matériel la dañ koy nangu te ñëpp xam nañ ne télévision yooyu matériel yi dafay cher te milliard pour nangu ko ci nit on assiste à une euh, chasse aux sorcières Macky Sall qui veut museler l'opposition c'est-à-dire Macky Sall ne veut pas que l'opposition dise ou bien et son mot à dire sur son, euh, son bilan. Parce que nous savons que la CNTV est une télévision très critique, n'est-ce pas, du gouvernement de Macky Sall. y Fofou, Yamoul si CNTV rek, ndax Mansour Diop, Mansour Diop, ñëpp xam un journaliste la, boo xam ne CNTV lay liggéeyee. Mansour Diop moo la na télé bi na Macky Sall télé bi du Sen TV rek Mansour Diop nee na am na beneen télé boo xam ne moom laaj ñu ko milliard mais ñaar fukk milliards vingt milliards lañ koy laaj beneen média kon suñu njot day ñaaw ne Walfadjri lay doon ñëpp xam nañ ne du TFM waaw ndax Macky Sall ñëpp xam nañ ne du laaj Youssou Ndour xaalis ngir lan Youssou Ndour moo koy xalamal comme ni ko Sonko waxee waaw léegi lii ban jàngat lañ ci mën a jëlee. avant ñu ci jël jangat bi ci parce que Pa Assane Pa Assane dafa né bu féké né Sen TV dafa amel dafa wara fay ni mu waxé dafa wara fay dafa am ci ay anam yu mu fay ndax nek ni bugan wèr lañ ko jox kon ak novembre TV na ñi fay liggéey yépp liggéey ndax dafa émission dafay déranger Macky Sall émission yu mel ne Ndoumbelane waaw légui lan moo tax Macky Sall ne dafay tëj élection euh, euh euh télé Bougane ñepp xam nañ ne émission yu mel ne Ndoumbelane wala Pape Assane Pape Assane émission bi muy def ci suba ci émission bobu tamit nekkuñ fi dara lu Macky Sall bu jalgatee ñu né ko Macky Sall da nga jalgati ñu ngi wax ci passeport diplomatique yi ñu ngi wax ci Bougazeli ngi wax ci loolu waa léegi Macky Sall lan mooy problème je vous ai dit qu'on a un président qui a perdu la tête un président qui est devenu fou un président qui est obsédé obnubilé par l'idée de faire un troisième mandat coûte que coûte un président qui veut s'assurer que les critiques n'est-ce pas que tout... Euh, euh, euh, les critiques envers son régime, envers son bilan cessent. Macky Sall yematul léegi ci tëj Guy Marius Macky Sall yemul ci tëj Kilifeu Y'en a Macky Sall yemul ci de Simon Yanama a marre léegi Macky Sall dafa bëgg de télé yi ndax kat Sen TV bu ko tëjee tëj Walfadjri léegi lan moo fiy des deux stv El Hadj ma fa nekk te El Hadj Ndiaye ku am problème mu Macky Sall da dàq gis nga nu mu def Pape Alé Niang parce que pap ale Niang dafa invité Ousmane Sonko foofu ñu mer daal ko dàq El Hadj sax gis nañu ba mu invité Ousmane Sonko ñu gis ko mu ñëw ci biir mu ñëw ci émission bi. Youssou Ndour ñu bëri nee nañu dafa ameel gouvernement bi dafa euh, impôt waaye Youssou Ndour Macky Sall ñemewu ko laal ndax Youssou Ndour mooy xalamal Macky Sall. Youssou Ndour ministre la mais ñun de dañu yaakaar ne xanaa xanaa Sénégalais yi duñu seetaan ñu tëj Sen TV Sénégalais yi duñu seetaan ñu tëj Walfadjri c'est vrai que Bougane Bougane moo tooñ boppam c'est vrai que Bougane kenn xamul ndax Sonko la àndal wala opposition bi la àndal wala Macky Sall la àndal ndax bu teyee mu dugal benn tànk suba mu génn benn tànk est-ce que Bougane sax du dem ba ci biir Macky Sall li mu bëgg Bougane defal ko manam maanaam mu ne ko djebul ci man peut-être que Macky Sall tout ce qu'il cherche c'est de tordre l'armée de Bougane forcer Bougane à transhumer forcer Bougane à rallier la PR mais Bougane c'est un homme têtu il est très entêté c'est un homme fier Bougane nit le ko xamné dafa ñëpp xamné nañ dafa dafa dëgër bopp ni Macky Sall dëgëre bop non la dëgër bop waye liko noppalon noppaloon Bougane li ko mooy mu bokk ci yeewu askan bi gis nga tey bu bokkoon ci coalition yeewu askan bi buñ ko jàpp bu ñu nar a tëj keleem dañ naan Ousmane Sonko moo tax ñu ñu nar tëj keleem te bu boobaa nit ñi dañ ko xeexal mais fi mu nekk nii kan mooy xeexal bugaan kan mooy xeexal bugaan ndax koo xam ne dañ naan Macky Sall la ngay liggéeyee am na ñoo xam sax lii yëpp gëmuñu ko nee nañ c'est une farce mais lii c'est pas une farce lii c'est une réalité waa li ñu bëgg a laaj tamit mooy bugaan nan la xullee bu dee dëgg la ba yoreel gouvernement bi un milliard beneen télé bi nan la yore gouvernement bi vingt milliards loolu de xanaa kii da koy wax rek Mansour Diop da koy wax parce que Mansour Diop joxul joxewul tur mais man gisuma télé boo xam ne dafa war a toog nga war a fay ay fay fayloo ko ba mu mat vingt milliards ngay xam ngeen luy milliard milliard mooy junni million milliard benn milliard rek mooy junni million 1 milliard, c'est 1000 millions. Comment une télé comme Walfadjiri, je ne sais pas si c'est Walfadjiri, mais Walfadjiri règle la donne, nan la donne 20 milliards Macky Sall. Mais nous, ce qu'on dit, c'est Macky Sall dafa commencer ëppal waa APR dañu commencer Apple. et le 3 mars le 8 mars nous avons fait. un yi dañ fi bi

xam naa jeudi dina leer parce que defe naa jeudi lañ ko war a attewaat bu fekkee ne dàquñu ko parce que Macky noonu lay def da lay war atte nga ñëw pour ñu atte la ñu dàq gis nga këram xurum xaar xam naa may ñaar ragal la ak Sall ragal la waaye li ñu bëgg xam mooy est-ce que am na fit gaa ngeen baal ma il fait très beau aujourd'hui loolu leen ñu bëgg xam mooy est-ce que Macky Sall est-ce que dina am fit fitu jàpp Guy mari Sagna tëj ko même bu dee sax weer parce que procureur bi moom nee na nañu jàpp Guy Marius Sagna juróom benn weer yoo xam ne da koy tëj ci kaso bi ak ñaari yoo xam ne ñaari at waaye ñaari at yi ci ñaari at yi juróom benn weer la wax il faut que Guy Marius Sagna tëdd ko léegi ñun dinañu xool ndax loolu Macky la am na fit bi wala amul fit bi man boo ma laajee dama naan la Macky Sall amul fit bi man boo ma laajee dama ne Macky Sall amul fit bi ndax bañ gi Marius Sagna nek maire jigen xëy xeyna moko duggal ci li mais semaine yàggatul ñun li ñuy digal Sall moy bu amé xel da fay bay gi Marius Sagna waye bu ko am bu bayul gi Marius Sagna dekk bi dina yegut te dekk bi bu yëngatoo ah dara dal gi Marius bu boba, bu ñu paleba, songu palais ba wala ñu génné ko wala nguuram yengutu wat bopam lako def ndax amul ben serigne bo xamné nit ñi dinañ leen bi voilà gaay laag leen partager leen dama leen di defal live bu ci kaname cinq heures heure Sénégal wala six heures heure Sénégal comme ça ñu gën a waxtaan ci lii yëpp parce que man wax naa leen dama dëf dama radical léegi Macky Sall dootuma ko may dara mu dootuñu leen may dara gars yi like leen partage leen na leen monsieur Cheikh la ba ci kanam merci